أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي متشابه منها من غير من غير من غير من غير su dóoree ak ngelaw dañ koy gërëm mu daw bi am réew si ñu gërëm ruxaa mbir mu aju mooy ay su asaabata fu mu nëmm de wasaati na sañ tàggatal ko saytaane yi kulla banaayin bépp tabaxaakoon tabax yu yéemu wa xawaasina ak bépp nappaakoon de wa axirina ak ñeneen mu xarale ñu di na tëre fi la saadi ci njëy asaari de ataaw naa may sunu comme num xéwéen fo kula soot awam si kuy si nga jàpp bañ a jox kenn du xayri hisaabin aji na tëre jëli bu xaame ba ko yàlla maye àdduna lu ci jiwén yépp lii la ko ca tegal ne ko maye lu la neex waaw te saaral bañ a jox ko kenn bu la neexee ndax daal sa wërsëg lu yàgg yàgg hisaab amu ci def way na la naka ñu nak la ñaar ko hen na fa lu fun fa ak jegeñ o suma dina rafet dal way de o fottu dal ham dana jam suma ayoba ayoba isma de ba mu hoye rabbo baramam de anni ci naka man masam ye joxal na ma setan setan bin bin ci lor de wa fa bin mu tidde yow ya yow sama borom setan lor na ma so joxal na ma ma tidde na to mu weyo na ca saaru lambiyaay buur dal ne urkubi gëddaal bu ñu jiite ci tànk fa gëddaal fa tànk ci suuf mu gëddaa rek waaw ndox daal di ball de ñu ne ko xaasaal de mu xësërun sangu waay la de na ab sangu kaay la baar ñu mbure aji sedd ne ko ndox mu sedd ñu na nga ko sangoo wasalaamu na suñ naan ñu ne dafa gëddaa rek yaari yoon daal di jógi ñu yoon ñu ñu def ndox mu tàng mu ne ko sangu ji mu sangu ji booleem feebar bu ne woon ci yaramam dañ ñu yoon def ndox mu ne ñu ne ko naanal mu naam lépp lu doon jàngoro ci baatinam daal di daal di dañ boo ko laaj ko yàlla delloo si nag mboolem la mu ñàkkoon de oo am naa tan may doon ñoom ko aadoo ñoom ba muslim ak tam seen maa oo maa woon ak ñoom doomam ya deewoon yëpp doom bu nekk dellu si ànd ak beneen beneen rakk bu ñu boole wuroon de yàlla tawal ko waaw weer waa tendrament ba waaw ba mu fees a turu weer waa san xamul sanr ñu taw ko ba mu fees a xaalis ñu ne ko wakkuf jàppal yaa di ci loxo sa rahmatan bi mu yermaa la mi naar di ko si ñun aussi karawaata dugg waa dugg dal baabu ñeel waram xali sal de fekk na génnoon noonu kata yoon ne dana dóor jabaram téeméeri yar ba mu koy indi rek wax iblis yàlla ne ko wakkuf jàppal yaa di ci loxo sa defoon ab binde takkal téeméeri yar yi rek daanu takk takk fabri dóoral bi ci moom sa jabar de nga dóor ko rek noonu benn yoon loolu dana dindi ndéñ la de wala taana si tabul tañu mu jàpp téeméeri bant ci mbañ mbañ sàlla waaw dóor ko ko benn yoon de inaa naka nun wajat naaw fekk nan ko saabira nan aji mun neex ma baax na alab di jàmba ayo ba ina yoon naka moom awaabu ndellaa kon na mu ci topp ak boromam de waskut doole mbaar naa jaam sunu ibrahima ibrahima doon saaxa ak isaaxa wa yaqooba ak yaqooba unu lay di ñu di waram kattan ya wala taari ak ñu fi xoleere ñu bëri kattan lañu am ci jaamu yàlla te am ñu fi xol ci diine dinaa naka nun axlas naam tànn nan leen bi xaalisa ci fikra daari ci tànn gaa moom fàttali ci kër gaa ak yàlla xira de way noom naka ñoom dana yoom ko fay na ak ñu nekk lañ ca ñun tànn ñoom dana si nun yàlla de lax yaa di ngeen yi tànneel wa surtout doy Ismaël Ismaël wal yasaan ak yasaan wasan suuri ak borom yaar ba ñi nga xam ne yàlla na téeméeri yonent wa kulun fëtt ci ñoom ñoo la xaar yi aji nekk la mu ci tane wére asa ji alquran sukrun fat guude aji rafet la waye li mu taq na naka aji nekk la ñaar way ragal la ñaar la lawu sama xaafir rafet del waaye la jaaraakare de dana daa dina aljanna sax mu fataatan dig ñu li ñu bilawum ñee leen la baabu buntu ya mu tëkkii na dig ñu ndiwéy ci tandiku te aja aljanna ca kaw gi lal seen ya doona danañu woo ci kulli faakaatin te aja aljanna bi faakaatin ci payte kësira ci ndaa ji bëri wa salaabi nan naan de koy te mu seen xam-xaj rek buñ ko mbëggatee rek mu daal di teew ci seen kanam am naan buñ bëgg rek waaye ndaw maa ji nekk la fa ñoom xaasraatu tarfi jongo ma di way jàpp ay teer ci seeni gëstët atraabu ñu di maas ñoom ñëpp genn maas lañ ñu ne doom yi fanweeri at ak ñett lañ ñoom ñëpp asa di la ñu ci doon maa ko doona mooy la def na dana leen ko de ak yow ma ñu yow ñu saabu ci lesen saabu ci dénkal yàlla daañ leen wax ci aljanna ne ina asaana këlee la def ko maa war sa timo maa lay leen ñaan ko mun na faa dina ak jeex rek asa dugg na tamit la de waaye ñu taaxi na waaye aji nekk lañ ñeel waaye deew ña la sarra maa di kër gi del waaye de jaanama jaanama ya soona danañu xalaf ko te bii sax bon na am naa atuwee lool la leen jaanuma ah ça mi leen bëggal te soo ko mos leen ko am ñu mun loxo mujj wax ko saa ko noonu dëkk wànjar de waa xaru ak leneen ñu set lii ñu doon moom de asuwaay junne ay xeetu kër la de mbugal yaa ci am mbugali safara ay xeetu kër ñu bokkul la de ah ça mi foofu ñu kuréel lañ mu koy daaje xarab safara maa tumaan la yoon kuréel yi dugg rek way toppe ya waaw do seen nga leen doon topp di leen wax naa la mara ban deden yaa dugg biir ci ñoom ñoom naka ñoom saalum ñoori way xaraf la ñu safara de xaalo wax nañ ñoom way toppee kan fa it antum yéen la mara ban deden yaa dugg ci yéen antum yéen xaddam ci moomu jiitam ngeen ko moom kéefar bi la naa ñu naan yéen a ci naal yoonu kéefar te bu ko banaal xaraaru taxawaay ba ñaar ñu ak ñaar leen de moo di safara de xaalu ñu wax rabbana yow borom ko ñun man xaddama ci jiital nañu la naa ñaan waaye saa jëlee kéeféeru sa tibi dali maa saaban bu gën see xam ni dañuy fula de ñaari ci safara de wa xaaru dañ wax naa la naa ana loom nun laa naraaba gisuñu rijaalana aw góoru kun naa nekkoon noonu naa wax dëgg mbir mi leen la saa di ci kees yi bon ana gis ci biir bi waaye amaa rek bi daal am soo yëngu yëpp ma dem sa war a def xanaa ñoom ñoom rawati wax ma am wax ma ñoom ñoom suxu yéen ci raa ci raataan suxu yéen ñu ñu yéeg ji te ñun dañ leen daa yéeg ji ana yu baax ñu yéen ci sa war a def am saaxaat am seen gannaaw ni mu di leen la faaw lu dëgg mu xanaa bi ñu dëgg leen jënd de waaye ñoom de xanaa ñu ci sa war a ñu buka mara bi al ko salman farsi ya rabbi kana qadra da apu hayy sabdani farsu ali mari lu ala yin sabara yin sabara kon da am ñun doon reeral ñu bokk di ko di safara loolu luy tabbi ci da am dara du jaafe qul wa hal ya muhammad inma ana naka man mundirun aju adala ma ma mi la yin yalla ila allah wa yalla alwaaye di kadi kenn alqahaaru ko de aji noot ay mbindeefam de rabbu samaawaati borom asamaan juróom yaa wasale ci juróom yaa roma bay noma la nekk diggante seen alhasiisu ko de aji noot ci guuram alqafaaru ko de aji baale kajam de xul waxal woo moom alquraan nabawun xolola afiwun ko de aji màgg antum yéen moori doona way de ñaanal wari sore xabaar bu réewi yéen wan ko gannaaw de mooy alquraan de maa kaana nekkul ni ñaanoon ñaan ñun xam-xam ndim malayka mbooloo ma laalaa ma daaju kawe de mbooloom yàlla mu kawe ma fii malayka ya xam ngeen ne man muhammadan kese xamali wala moom dara de i yàq si mën a bëgg ñu xuloo ci mbiram aadama de kon nag su may yore xabaar de xam ngeen ne yàlla ma yónni de in yoo haa naka def na woyu ilay jëm ci man ilaa ana ma ana naka man nasirun ajuwaaru laa mu biin jib jib juwaa de kur jàngatal is qaala ba waxee rabbuka borom sa lil malaa'ikati ñaan malaaka ya inni naka man xaaliqun aji bind la ma basaran aadama min ci mu dugg ci ban de bëgg naa bind aadama te ci ban laa ko jëlee te idaa sawaytoo ndem matal na ma bindam wa nafaxtu sama dawal fii ci moom min ruuhi roxo sama fa qaama tabbi leen saa ji nan mi ngeen di wéy si jolle wo ñeel ko de bés bu ma bindee aadama ba mu sotti de roxo sama rawa daw ci moom bu baax si jot a leen bëri dafa jot a def si góor almalaay yi dafa malaaka yi ku lu yëpp yéen ak moom a mboole. ñoom malaaka yëpp ñu nangu ndigalal yàlla la ci jootal Adama lu mooy Iblis. istakbara rëy lu mu wa kaana tam nekk mu nekk kafir na jawe di ñële mu bañ xaala wax yàlla yaa Iblis yaa iblis yow iblis amanaaka amalu tere la an tas bi la bu jël si jéetal dinaa xalaat bu jële ma dund bi adee ci kattan sama non li tax nga bañ si jéetal loo xam ne maa ko bindal sama loxo ñu teral ñu teral ko astakbarta réelu nga am kunta am na si nga mel na xalina jawa yi réelu nga de bañ bi aadama bañ bi bañ ñu di ci jootal aadama ñetti bakkaar yu mag ñoo ci ñoo ci booloo yëpp yàlla tudd na ko ci laay yi fii na nga ko lu tax nga bañ a sujjóot loo xam ne maa ko bind ak sama loxo xanaa bañ naa magal lu yàlla magal keneen mu ne ko maama naa garanta si la li amartu ko lu tax nga bañ a sujjóot gannaaw boo xam ne man yàlla digal naa la ko nga xam ne bañ na digalal yàlla keneen mu ne ko maama naa garanta tana maa saa jigéen lu tax ànd laa sujjóot kër génn na mbooloo mooy na ndigalal boromam waaye xam na lu yàlla magal génn na mbooloo itam de déggal lay mu bon wi nag xaala mu ne ana man xayrun maa gën minu ci aadama xalaqta ni bind ma min naarin ma tukko ci safara wa xalaqta yow taga bind ko min tin mu tukko ci bande mu ne ko aadama mi maa ko gën wala ma ko sujjóotal ndax maa ko gën cosaan man sama cosaan mooy safara aadama cosaanam di ban te safara gën bande ndax safara leer la bandi lëndëm te leer a gën lëndëm safara bu leeree xam nga fay mel ni jant de tax na ba iblis ne safara suuf lu leer la aadama nag ñu jóge ci ban ban lëndëm la leer a gën lëndëm bon moom moo gën aadama mel ni ñu jóge ci lu gën daal moo gën lu jóge ci luñ gën te yàlla moom loolu dara soxalu ko ca bët bu seet ñu génne lu lu gën mu bàyyi ko ci luñ gën génne lu xees mu bàyyi ko ci lu gën de ngaan waaye luy cosaanam ndox mu neex te réwul léegi ngaan waaye la rek sobe la nag loolu daf ko wax rek ngir lëntam réeral li ñu koy dégg waaye sax loolu lu doon dëgg ci moom li dëgg ci moom mooy rëylu na añaan na wedd na bi mu defee ne safara gën suuf nag foofu la juumee suuf a gën suuf safara ci kanam yu bari safara dafay lakk di yàq suuf moom di yéwénal de soo fa bee sa jiw ji ko ci suuf dafay dafay saxal di ko yaar muy màgg ba tey ñor nga jële ci njëriñ moo tax tool yëpp ci suuf lañ koy ji safara moom boo jëfandee say jiw nam koy def ne ko fuuf lakk ñàkk la nga taxawaay te mbindeef yi njaboot ak yàlla lañ koo ëpp njëriñ ci mbindeef yi koo ko gën fa yàlla fuuf taxawaay la ñuy doomu aadama yi ci la ñuy dund buñ dee ci lañ leen di suul amul benn dëkk bu nekk ci biir safara suuf ay mbella ngi ci ay yoon yu dawa ngi ci ay dërë ngi ci amul benn dëkk amul benn gàncax amul benn tool amul benn mbella bu nekk ci safara safara dafa xoyof ci gis nga jalam mënu muy def di yëngatu doo rëgg mooy mu fay suuf nag moom dafa dal wegu moo tax doomu aadama yi mën a dund ci kawam mooy barabab jàkka yi dindi gab yàlla bi sax ci kaaba bi ci suuf la nekk soo amul woon benn jàkka bu tegu ci kaw suuf lu mooy kaaba ga sax doy na amul benn jàkka nag bu nekk ci biir safara suuf yàlla tudd na ko lu bari ci alxuraan tuddal ko yu ngëneel toujours mu di ñu wax ne nañ ko seet tuddal ko barke wa baarak naa fi aar wax na ko ci suuf lépp wax na ci lenn xaaju suuf itam yooyu masjidul haram yi yooyu masjidul aqsaale bi barak naa hawlehu mën na jariñ lu may ba te tegoo ci suuf wala mu tegu ci lu tegu ci suuf tax na ba safara moom soxla na suuf te suuf suuf moom doy na wari safara safara benn njariñ rek la am ci àddina mooy ñoral aw ñam ñu lekk ko ak tàngal loolu rek la safara jëriñ loolu it nag ànd ak dañ koy tëj jéng ko wattu gu ne jéng ko wàll gu nekk te di wattandiku bu baax ñam wiñ togg su kaleer ak a doxutoon diggante ñam wa ak safara nu muy def ban mu lakk ko rek mu jeex tax na be ñoral gi muy ñoral ñoom sab moom rek la waaye di jubloo moom jubloom yàq rek la da bu kale rek a doxutoon digganteem ak ñam wa daf koy lakk def ko këriñ kon kay fu fa gën safara suñ nangoon ak li wax ji wax Iblis wax ne cosaanam moo gën cosaanam Adama loolu tegte lewul mu gën Adama de bët bu set ñu gis cosaan lu gën jur doom ñu gën ko ñu gis cosaan luñ gën mu jur doom ju gën xéefaree ji yonent yi yonent yi ji xéefari yàlla lu ko neex mu gënal xaala wax yàlla nag ne ko faxru gënal mi naa dugg ci aljana tey naka naka yow rajulun kuñ dàq nga way naa lekk naka wàlla laana téem rëbb sama ilaa yawmal diini laana téem sari yërmande sama ilaa yawmal diini ba jëbee sa tey la xaala wax iblis rabbi yow borom sama fa anti ni yàlla nga yéexe ma ilaa yi ma sama ba ca bés ba def na dekkal nii xaala wax yàlla fay naka naka yow ñoom mun sa naa ji nekk nga jëñ yéexe ña ilaa yi waxtu ba ca bés ba waxtu almaalo mu bari muñ xam mooy wañ bu jëkk ba xaala wax iblis fa bi xet sa tika jëñ na ma ci teraanga fa yow yàlla la waxu yannahum walaay dana ma bewal leen aj ma neen bu mu ñuy mboole ilaa baadaka laray jaam sa minum ci ñoom almuxlasiina ñu di way gëm de xaala wax yàlla fal xaq dëgg aqulu damay wax wala xaq dëgg aqulu damay wax maa ngi wax nag lan la am la na walaay dana ma feesal jaanama jaanama min ka ci yow iblis wa mi man tabi'aka ak ña topp nañ la de minum ci ñoom doomi adama yi aj ma neen mbit mu ñu mboole xul waxal ma asalukum laa juma leen alay ci jotal ak alquran min ajrin ab yool de wa maa ana déen man mina mutakallifiina mu bokk ca way toggooña ay wax du maa togg wax ko de dañ ko woyi ci man rek ma jotal leen ko in wër yéen moom ilaa dikrun dara waar la lil aalamiina ñeel bindee fi nit ak jinne de wala toolu moom a xam ngeen a xam na ba oo saloom ba de hin ci gannaaw jamono de